wa man tabiahum bi ixsaanin ila yowmi ddin subhaanaka laa ilma lana illa ma allamtana innaka anta al alimu alxakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli asalaamu aleykum wa wa barakaatu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare di leen nuyoo fii ci chaîne bi nga xam ne mooy chaîne Grande Mosquée de te daairatu muqaddamatul xidma di ko saytu di leen ziyaare ci bis yu tedd yi nga xam ne ci lañ nekk te ñuy séentu bis bu màgg di 18 safar di bis boo xam ne ñi ngi ñaan suñu borom mu àggale ñu ci ak jàmm lépp loo xam ne def nañ ko ci ay jaamu yàlla suñ boroom nangul ñu ko def ko ay xéewal ak barke ci def ko ci réew yi jullit yépp ñu ñëwoon nag tey jii ci activités yi nga xam ne exposition bi nga xam ne daairatu muqaddamatul xidma ànd koog association des écrivains de la Mouridiya ak rawdu rayaxiin ñu baaxoo ko di ko amal at mu jot ci bisi màggal gi ndax màggal gi ñun ñëpp xam nañ ne dafa am ponk bu am solo boo xam ne da cee nekk ponk bu am solo mooy bernde ñoom nag ñu tànn berndeel gan ñi ci xam-xam ñu day def exposé boobu nga xam ne ku ci ne ci ñetti mbooloo yooyu ku ne yaa ngi yëngu ci xam-xam waaye ku ne boo ñëwee nga gaaral li nga xam ne moom ngay yëngu mu nekk exposé bu am solo ñu jëloon nag rawdu rayaaxiin ci lenn ci liggéeyam yi nga xam ne dana ko def tey jii ñu bëgg taxaw ñu gaaral leen ko ñu gaaral ko mbooloo bi te mooy benn téere boo xam ne cheikhu ahmadou bamba abdullahi wa qadimu rasuli mu bokk ci liggéey yi nga xam ne rawdu da koy taxawe euh, te raw rawdu rayaaxin ñun ñëpp xam nañ ko muy daayira boo xam ne li ko sos mooy xam-xam ak di tasaari xam-xam te lépp ñu tënk ko ci sëñ bi ak dundam ak li nga xam ne mooy almuridiya kon tey téere benn ci liggéey yooyu nga xam ne raw rawdu rayaaxin dana ko taxawe tey jii moom lañ bëgg a gaaral ki ñu koy gaaral nag di al oustaz ak docteur Serigne Sam Boussa Abdourahman ñun ñëpp ñu xam ko xam naa moom ganiyun ani taarif ci di ko xamle mooy kan ndax képp koo xam ne da ngay topp wàllu xam-xam ci yoon wi ak lu ko génn danga koy gis toujours da nga ko ciy gis kon daanaka ñun ñëpp xam nañ ko kon euh, yaakaar naa xamle bi du ko jar di benn kenn koo xam ne ci fo membre fondateur ci Rawdu Rayaahiin la bokk di doon koo xam ne tamit mooy ki nga xam ne moo topp ci almunasiqul am mooy coordonnateur général di sëñ Ahmad al ñu ngi koy ñaanal suñu borom yokk ko moom mooy mooy ki nga xam ne moo topp ci moom te tamit di jàngalekat cee ca université bi nekk fa tamit ki nga xam ne mooy adjoint di secrétaire général mooy mooy mooy mooy mooy mooy adjoint kon da ngay gis ne léppam yëngu yëppam rek ci xam-xam la képp koo xam ne yaa ngi topp ci wàllum bind da nga koy gis muy faral di bind lu bëree bëri te lépp jëm ci yoon wi ak loo xam ne dafa laal dundu sëñ bi képp koo xam ne tamit yaa ngi topp média yi da nga ko ciy gis lu bëree bari moom nag liggéey bépp boo xam ne raw du def na ko ci wàllu xam-xam da nga ko ciy gis mu fés ca lool doon koo xam ne ku disponible ci xam-xam la ndax tey jii rek wane na ko tey ci yu bëree bëri ci la nekkoon waaye dafa dagg yiteem yooyu yëpp rek ngir ñëw tey aardul ñu benn téere gaaral ñu benn téere boo xam ne téere bu am solo la raw du def ko kon ñu ngi koy jaajëfal bu baax di ko jégg lu baax ci coono yi jànkonteel yëpp ngir ñëw defal ñu ardu boobu kon ñu leen di bàyyi rek ngeen may ko nopp bu baax a baax xam naa sax muqaddima bi gudd na ñu ñu bari ñu ngi bëgg ma noppi ngir xam nañ ne gan gi nga xam ne mooy wax kooku moom ñëpp yaakamte nañ mu wax ndax bu waxee xam-xam lay wax te lu am njariñ lay wax kon dañ koy jox kàddu gi mu daal ñuy duggal ci téere bi nga xam ne tey jii bëgg nañ ko arb te mooy Cheikhu Ahmadou Bamba Abdullahi wa Xadimu Rasuli kon sëriñ Saam bismillah bismillahi rahmaani rahim alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa wala jërëjëf sëriñ Fallou nga lay nuyu baax di la ziar sant ci dalal bi di ndok la ndokkeel di ndokkeel jullit yëpp euh, ci bis bi nga xam ne moom lañu dëgmal muy fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar di ndokkeel ñi nga xam ne it ñoo taxawal maarat muy exposition bu am solo bi jëm ci wàllu euh, mbind muy muqaddamatul xidma ak rawdu rayahin ak association des écrivains mourides muy lu am solo lu bokk ci màggal gi ndax ku ne xam ne sëriñ bi kàggoom dafa yaatu kon mbirum xam-xam da cee am wàccuwaay bu am solo di la sant it ci li ngeen tànn sàkku ci ñun ñu gaaral ko ndax dafay téere bu am solo lool boo xam ne Rawdu Rayaahiin ñoo ko génne jëm ci tunduk sëriñ bi a Cheikh Ahmadou Bamba Mbakke Abdullahi wa Xadimu Rasulihi kon téere la boo xam ne bu mat gaaral la bu mat a xam li ci nekk la ngir kenn ku nekk xëntawoo man koo am kon ñu ngi lay sant bu baax ci dara bi ngeen ñu dalal ak taxawaay bi nga xam ne yéen a ngi koy taxaw ci màggal gi di ñaan suñu borom jéego mu nangul ko te dugal ko ci cantuk Cheikhul Khadim radiallahu anhu mi sàkkoon ñu santale ko boroomam kon jërëjëf sëñ sëñ sëñ Saam ci eh, muqaddima bu am solo boobu ak nuyoo bu am solo boobu kon xam naa dañuy daal di dugg rek ci waxtaan wi dañ lay bàyyi nga hmm. euh, présenté ñu téere bi nga xam ne moom la indi tey pour gaaral ko mbooloo mi. ok jërëjëf sëñ Fallou. Hmm. Hmm. Euh, téere bi mi ngi tudd Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké Abdullahi wa Xadim wa Rasulihi bu euh, buñ ko bëggee gaaral nag xëy na gaaral bu tënku lay doon. ndax téere bi yaatu na. neexut a dugg ci détails yi waaye danañ ko gaaral noo xam ne kuy déglu. di ñu seetaan di nga xam li nekk ci téere bi mhm. li nga ci nar a fekk boo ko jëndee mhm. waaye nag ca du dugg ci duñu dugg ci li nga xam ne mooy détails yi waaye danañ li nga xam ne ay tomb la mhm. yoo xam ne ëmb na ko waaye ba la dugg ci li nekk ci téere bi contexte bi nga xam ne ci lañ taalifi téere bi jar nañu taxaw ci tuuti ci jamono jiñ taalifi téere bi bu ko defee doog a ñëw nag ci li téere bi ëmb xëy na jéem koo daaneele ci Euh, li nga xam ne moom lañ mën nañ ko wax ne téere bi ràññikoo na ko hmm. bu ñëwee ci contexte bi maanaam lu tax ñu taalif téere bi hmm. ci jamono ji hmm. euh, ku ne xam nga ne ku ne xam na ne li ñu bind ci sëriñ bi bari na lool mag ñi jamonoonte woon ak moom bind nañ Cheikh Abdullah al Alawi euh, muy Mauritanie bu borom xam-xam bu doonoon taalib sëriñ bi gis nañ téere bu am solo bi nga xam ne bind na ko euh, Cheikh Mbacke Bousso hmm. radiallahu anhu moom it bind na ci moom ñoo ñëpp bi ñu bind ci moom ci ak dundam ci jamonoom hmm. waaye ñu gis ginnaawam it njabootam gu tedd gi ku mel hmm. bind na ci moom sëñ Mouhamadou bind ci moom waaye ci taalibeem yu mag yi taqoo woon moom it gis nañ ci ku mel ne sëñ Mouhamadou Lamine Diop liñ ci ràññ ko woon ñu ñëpp bind ci sëriñ bi seen ginnaaw it gis nañ euh, ay borom xam-xam bind ci dundu sëñ bi gis nañ sëñ Mourtala Mbackeem sëñ Cheikh euh, sëñ euh, mm-hmm. euh, mu bind téere bu am solo ci Mouridiyya jëmale ko ci sëñ bi boobu yàggutoo gis nañ sëñ Cheikh sëñ Mountakha mm-hmm. bind téere kon dëgg lañ ñu ngi bind ci ci sëñ bi waaye teewul ñu war a mën a téere bu mel nii war a mën a génn mm-hmm. la ko waral mooy gis nañ ne téere yi bari na ak bind bari na waaye ma am na ñoo xam ne mi ngi mel ne ñu ngi bind loo xam dañu mel ni jànguñu téere yooyu nga ne ba tey am na ñuy taalif ngir ñaawar daru lislaam ak borom xam-xam lislaam yi loolu moom jamono ju nekk mosu fee jóg mm-hmm. ak loo xam ne ay vérité historique la liñ ko mën a waxee ay xaqaa'iq taarixiya mm-hmm. lu sax ci histoire mm-hmm. nga gis ñu ñëw bind ko bindeel ko noo xam ne du demee noona sëñ biit ak dundam loolu da cee am ba tey bari na ñoo xam ne ñu ngi bind ci la ñuy bind loolu dafa naa téere am na téere bu ñu fi gaaral mhm. jub ci shubuhaat wa axtaa xawlal muridiya mhm. euh, wa mu assisiha mhm. nga xam ne rawdu rayaahin bu ñu koy bind it ngir yu mel noonu moo ko waral ngir yenn ñu nekk ñu di cee leeral nekkul ay tontonte wala dara waaye leeral dëgg ndax histoire dañ ko fi bàyyil suñuy sët bàyyil ko fi ay génération kon lu ñu bind ci mbind may des bu gisee ne demewut noonu war nañoo taxaw bind ngir fu mbind mooma mu njëkk ma àgg mu mujj mën fa àgg loolu kon it war naa tax ñu wëy di taalif ci mm-hmm. dundub sëriñ bi mm-hmm. waaye boo seetee da gis ne am na ba léegi ñoo xam ne du du ñuy bind mm-hmm. waaye ñoo xam dañuy waxtaan ci sëriñ bi maanaam sax ñoo xam ne ñu gëm sëñ bi la doo xam ne ñoo xam ne ñu sopp sëñ bi la ak ñoo xam ne sax mën naa am seen yéene rafetul moom nga xam ne xëy na du waaye yooyu ay jàllale ay wax yoo xam ne bu ñu ko seet seetloo dëppoowut ak li am ci dunduk sëñ bi ak jaar-jaaram mm. am na ñoo xam ne ak xëra leen jàpp ñu ñuy wax loo xam ne daanaka boo ko seet seet xel sax du ko nangu mm-hmm. wala boo maanaam bu dee am na ci loo xam ne lu xel nanguwut li may wax nag bokkut ak ay karaamaak loo xam ne suñu borom ko jagle sëñ bi waaye loo xam ne dangay xam ne lii saxut bokkut ak li nga xam ne boo demee ci ñu bind ci dundu sëñ bi loolu nga fay fekk ñu wax loo xam ne safaanub lool la mm. loolu muy nekk luy tasaaroo mm-hmm. te nag sëñ bi ak dundam dafa fees dell riche lool liñ ci mën a wax mm. ci lu dëggu loo xam ne noonu la amee mm. dafa doy sëkk mm-hmm. moo tax kon ba tey war nañ bind ngir eh, ñu mel noonu waaye it dañoo toll jamono joo xam ne ñi nga xam ne ay gëstukat lañ di ay jàngkat mhm. di ñoo xam ne dañoo bëgg a bind ëllëg xëy na soxla nañ référence boo xam ne day làmboo dundug sëñ bi ci wàll yëpp euh, détails yi nga xam ne soxla nañ ko ci dundug sëñ bi mhm. mën ko caa fekk muy benn référence boo xam ne dañuy la ca nekk du wóor lay doon mhm. loo xam ne ña ko bind dañ koy teg ci euh, sart yi nga xam ne moom la xam-xam laaj mm-hmm. ñu ñu def ko euh, ci anam goo xam ne nag day dëppook norme yi ñuy bind ci jamono ji mm-hmm. euh, ndax xam nga euh, taalif dafa dafa dafa dafa dafa dafa gën a jëm kanam am yu yu yees yu ci yuñ ci indi mm-hmm. yoo xam dañuy boo booy bind dañuy bëgg nga tënku ca yooyu yëpp it dañuy taali téere boo xam ne day tënku ci maayir académie li ñuy wax norme mhm. académique mhm. loolu it gëstukat yi dañ koo soxla mhm. ci dunduk sëñ bi loolu moo tax kon euh, Rawdu Rayaahiin euh, ci silsila bi nga xam ne moom lay génne tudde ko diraasaat xawlal muridiya euh, adat ñetteel bi mu jagleel ko dunduk sëriñ bi ca boobu nag day silsila boo xam ne dañ koy waxtaan yi nga xam ne ñu ngi koy amal ci màggal yi mhm. day doon waxtaan yoo xam ne doo doon rek nit ki day ñëw toog di wax walla mu gëstu bind ñëw di ko wax mhm. waaye Rawdu Rayaahin day tànn ab commission mhm. boo xam ne ñooy ñooy jàng bind ñooy waajal texte boobu teg ko ci xam-xam teg ko ci gëstu bu wóor nga xam ne kii koy jàllale moom ab résime rek la cay indi waaye gëstu bu am solo lay doon gëstu yooyu nag dañ koy dajale di ko def ay téere moom la ñuy tuddee dirasaat xawlal muridiya génn nañ ci bu njëkk génn ci bu ñaar bu ñetteel bii nag moom mooy bi nga xam ne ay gëstu yoo xam dafa aju ci dundug sëñ bi yoo xam ne mat na ñeenti at mm-hmm. moom lañ boole mm-hmm. ndax am na gëstu boo xam ne dafa jëm ci dundu sëñ bi lu jiitu géej gi mhm. gëstu boo xam ne dafa jëm ci géej gi mhm. gëstu boo xam ne dafa jëm ci yoonu gànnaar mhm. ak gës gëstu boo xam ne dafa jëm ci résidence surveillée mooy iqaama jabriya kon dafa dugg kon ci silsilab diraasaat xawla murid nga xam ne mooy gëstu yi raw du di amal at mu jot te buñ demee ba am ci lim ñu dajale ko def ko téere bii nag ñu jagleel ko li nga xam ne moo aju ci moom ci ci ci ci dundug sëñ bi kon loolu mooy leeral contexte bi nga xam ne ci lañ taalif téere bi ak yi tax ñu taalif ko yooyu yi ma wax noonu waaye nag téere bi kon boo ñëwee lan moo nekk ci biir téere bi euh, boo ko xoolee mu ngi mat juróomi téeméeri xët waaw juróomi téeméeri yooyu ni ñu ko séddalee mooy am na muqaddima boo xam ne moom lañ jiital waaye it am na ñeenti fasl mooy Euh, ñeenti pàcc. yoo xam ne téere bi am na ko. Euh, am na it xaatima. mooy conclusion bi nga xam dañoo doon joxe waxtu wi euh, ñuy dellusiwaat ci suñ jataay bi nga xam ne ñu ngi ko doon def ak docteur Sëñ Sam Bousso mu ñu doon ardul wala di ñu gaaral téere boo xam ne dafa bokk ci liggéey yi nga xam ne rawdu def na ko. di téere bu am solo cheikhu ahmadou bamba mbakke abdullahi wa qadimu rasuli di euh, euh, wax ci dunduk sëñ bi ci euh, ci jam ci ci domaine yëpp ci jawaanib yëpp mu ñëwoon nag di ñu waxal nag ci contexte bi nga xam ne ci lañ defee téere bi ak lan moo waral ñu taalif téere bi dañ koy bàyyi rek mu continuer de ci contexte bi nga xam ne moom tax ñu def téere bi ñu dellu siwaat rek ci wax ne Rawdu Rayaahiin bu bindee téere bu mel nii kenn du laaj lu tax mm-hmm. ndax dafa bokk ci mission bi nga xam ne am na ko ngir tasaare njàngaleem sëriñ bi mm-hmm. te buñ nee njàngaleem sëriñ bi ak dundam lépp am njàngale la mm-hmm. kon njàng mi ak njàngale mi ak dund gi dañoo jaxasoo kon téere bii dafa dugg ci cadre boobu waaye ñëw ci jamono joo xam ne it laaj na ko ndax yi ma wax léegi mm-hmm. mooy ñiy bind ci fi ñu koy liñ bind li ñuy bind du wér ak ñi nga xam ne dañuy waxtaan ci mm-hmm. léeg-léeg mu laaj euh, ñu am delluwaay soxla delluwaay mm-hmm. ñi gëstu ñoom it soxla delluwaay delluwaay boo xam ne it day delluwaay bu euh, ci norme yi koy taalife dëppook norme yi nga xam ne euh, mooy moom la xam-xam ci jamono ñuy toll laaj loolu lépp kon ñu génne ko Euh, ginnaaw loolu it téere bi biñ ñëwee ci xamle li nekk ci téere bi wax nañ ne téere wax nañ ne téere bi ñu ngi euh, boo ko xoolee juróomi téeméeri xët la mm-hmm. am ab muqaddima muy introduction euh, ak xaatima muy wax conclusion ginnaaw muqaddima boobu am na ñeenti ñeenti fas yi mm-hmm. chapitre yoo xam ne bu ci nekk am na lañ ko jagleel mm-hmm. loolu lañ tàmbali loon leeral ñu li wax ne faslu bu njëkk bi mooy bi nga xam ne moom lañ jagleel dunduk sëñ bi lu jiitu muy dem ci géej gi te buñ waxee dunduk sëñ bi luy jiitu mu jëm ci géej gi kon danañ wax aw askan leeral askanu sëriñ bi euh, ni mbokke ak ci wàllu waajuram mu góor ci wàllu waajuram mu jigéen foofu mu bokk euh, ñooy ñan euh, lan lañ leen xame woon loolu boo ñëwee da fekk ñu leeral ko ci waaye sëñ bi it fu mu jaar ci wàllu yar waaw ndax loolu lu mat a xam la ndax sëñ bi dafa dañ ko waajal waaw suñu borom da ko waajal ginnaaw bu ko tànna tànnalee euh, waajur yu mat sëkk yoo xam ne xam nañ leen ci ragal yàlla xam nañ leen ci xam-xam xam nañ leen ci fonk si diine xam nañ ci melokaan waaye nag ñu jaarale ko fi ñu ko war a jaarale mu jàng xam-xam jàng alxuraan ba wattu ko wax nañ fam jaar ñi ko ja ñi ko jot a jàngal loolu boo demee ci téere bi di ko ci fekk mm-hmm. nañ ko yare mm-hmm. da nga ko ci fekk mm-hmm. waaye sëñ bi melokaan yi nga xam ne moom la amoon eh, ci ab bindam ni ko seet suñ borom binde woon mu doon nit ku diggu doomu ak nam daan solo. Mhm. sax ci ci ñëw ñëw nañ ci. ngir ngir ngir wane sëñ bi daal mooy kan ban personnalité la. Mhm. Euh, wax ay melokaanam yi nga xam ne ci wàllu jikko niñ ko xamee woon. xam nga sëñ bi lu jiitu muy woote sax. Mhm. xamoon nañ ci moom ak dëdd àdduna. xamoon nañ ci moom ak sàmm. waru samoon nañ ci moom ak ak ak fonk jaamu yàlla. loolu yëpp ay melokaan la yoo xam ne xame nañ ko sëñ bi. yooyu boo ñëwee ci téere bi dangay gis leeral nañ ko melokaan yi nga xam ne bind la ak melokaan yi nga xam ne jikko la waaye fii nag lu jiitu géej gi dañ kee taxaw taxawaay bu yaatu ci tomb bu woote bi nga xam ne moom la woote ndax xam nga woote bu moo jiitu moo jiitu géej gi kon kuy wax ci sëñ bi lu jiitu géej gi da caa bokk tomb ba ci gën a am solo wala ba bokk na ci tomb ci am solo lool mooy biñ ko waajalee ba waajtaay mat mu nekk ci ron waajuram Euh, di jàng ba mu demee ba am xam-xam muy jàngale ci keppaarug waajuram ba fu waajuram jógee ab diir ci la woote wooteem bu rëy boobu nga xam ne mooy mhm. ndigal li ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jox ne ko rabbi asxaabaka bil himma mhm. mu ñëw nag woote weneen maanaam soppi daara ji ci anam goo xam ne yematut ci jàngale rek mhm. waaye day yare nga xam dafa laaj nit ki euh, am engagé wu ci ànd ak moom. Mm-hmm. ci eh, ci ci fi mu bëgg jaar ak nangul ko jox ko sa kilifteef mu yar la. ci mm-hmm. la jox man araada ma aradna fal yasir mm-hmm. bi sayrina wal yaqum bi amrina kon loolu tomb bu am solo la boo xam ne. indi nañ ci ay leeral yu yaatu. waaw woote boobu it ak daara yi nga xam ne sëñ bi sanc na ko bi mu wootee ba noppi ndax sëñ bi moom woote bi nekkul rek ay théorie yu mu doon wax di ko jàngale. waaye da doon yar. yaral googu. Eh, yóbbe na ko ci mu doon san ci barab yoo xam ne hmm. fa doon wéet ak ñamu yar hmm. ngir yar leen hmm. waaye diggante boobu it xam nañ ne sëñ bi téere bi ñëw na ci liñ fi taalif ndax si bi dafa teel a tàmbulee bind teel a taalif eh, ba taalif na lu bari lu jiitu muy dem ci géej gi moo tax indi nañ ci ab pàcc boo xam ne dafa jëm ci eh, lim taalif taalif yooyu ay xeet la am na téere yoo xam ne yuy jàngale la mm-hmm. waaw yoo xam ne day jàngale mu ne al jawharu nafis mm-hmm. masalikul jinaan mm-hmm. eh, mawahibul quddus nga xam ne téere yoo xam ne téere yi jàngale la mm. mu nga xam ne am na ci yoo xam ne yow fi fekkoon la ñu weesar ko mu way ko ngir yombalal ñiy jàng ñu mën koo mokkal ngir it dugalaat ci yoo xam ne it ay njëriñ yu yaatu la mm. mu am ci loo xam ne ay dénkaane la mm. yu daan dénkaane euh, waaye mu am ci loo xam ne it ay xasida la yi ñuy baaxoo wax xasida euh, te mooy yi nga xam ne nag da ko jagleel diggam ak boroom di ca sant yàlla di ca julli ci yonent bi sallallahu di ca ñaan suñ boroom di ca tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam mm. muy ay xasida yoo xam ne yu yéeme la mm. yéeme la ci wàllu ni mu ci doon ñaane mm. waaye xasida la yu yu làmboo it du bare bari buñ doon wax ne philosophie sëñ bi ci xasida yooyu mën nga ko cee fekk maanaam aw gisiinu àddunaam ak bëgg-bëggam ni bëgge woon fi mu bëggoon a jaar ak fi bëgg ay jaar fa loolu lépp da koy da koy dëxañ ci biir xasida yi ndax booy da ngay gis buy julli ci yonent bi sallallahu ak ñaan yam cay ñaan am maanaa yu nga xam ne moom lay ëmbaale yoo xam ne dañ ciy gisaale ban gis-gis la am fan la jëm naka la bëgg a doxe ak ñi ànd ak moom naka la bëgg ñu doxe muy am solo waaye lim bind ci ay ubbee ndax sëñ bi boroom xam-xam la woon boo xam ne dañ ko daan laaj ci diine muy tontu loolu it yu bari indi nañ ko ci ci téere bi mhm. ak yi nga xam ne sax ay leetar la yoo xam ne da ci daan mhm. tontonte ñu ngi ko doon bind mu leen di tont ak yoo xam ne moo ko doon bind mhm. ci diir boobu nga xam ne moo jiitu géej gi euh, indi nañ kon indi nañ ci dëkk yi nga xam ne sañc na ko waaye it tukki yi nga xam ne jot na koo def ci diggante boobu ndax sëñ bi tukki na fi mhm. euh, tukki na fi ci biir réew mi ni ko mhm. sëñ Mad Lamine Diop waxee mhm. euh, tukki na ci biir réew mi ab diir ba gànnaar sax dem na fa euh, kon sëñ bi jox naa dem na ndar yooyu yëpp tukki yooyu boo demee da gis ñu leeral ko ci téere bi mm-hmm. ak ay relation nim mm-hmm. maanaam nag mm-hmm. ñu ay jegeñaaleem ni daan jëflanteeg ñoom waaye ni mu ni mu am leente woon ak borom xam-xam yi ak euh, sëriñ si ak sax autorité yi nam nam daan jëflanteeg ñoom ci jamono jooju mooy buuri àdduna yi am na taxawaay bu mu amoon ci ñoom loolu boo demee ci téere bi da gis ñu ñu ñu leeral ko ci kon loolu mooy euh, xaaj bu njëkk bi pàcc bu njëkk bi ci téere bi wax ndax waxoon naa la ñeenti pàcc la mm-hmm. boo ñëwee ci pàccu ñaareel bi mm-hmm. dangay gis sëñ bi jëmal moom mooy bi nga xam ne nag moom lañ jagleel mm-hmm. tukkib géej gi waaw tukkib géej gi doon diggante bu boo xam ne boo ko boo ko boo ko màndaxeek yeneen yeneen diir yi man nga mm-hmm. juróom-ñaari at la mm-hmm. waaye yu am solo la ci dundu sëriñ bi mm-hmm. yu fees dell yi la ci bari ay jeexit ndax buñ xoolee man ngaa nimaale sax ne màggal gii ñuy màggal tey euh, bokk na ci xéewal yi ko suñ borom defal ci tukkib géej googu bokk na ci li waral màggal gi kon moo tax waxtaane ci euh, bunt boobu danga nga ci ay fekk ñu leeral lan mooy sabab yi tukki bi waaw sabab bi tukki boobu it ñaari xa ñaari ñaari ñaari ñaari xeeti sabab la mhm. ndax am na lu ñu tuddee al asbabu zahira nga xam ne sabab yoo xam ne da ngay man da nga ci mën a teg loxo ne lii ak lii ak lii la mhm. loola am leeral na ci yi nga xam ne mooy sabab yooyu mhm. waaye am sabab yoo xam ne diggam ak boroomam la moom ay sabab yoo xam ne sabab asbab baatina la loolu boo demee leeral nañ ci xayba bi tukki géej gi mm. nga xam ne mooy tukki bi mu dem Gabon mm. la ko waral ci zahir ak mm. nam sette woon ak tubaab yi ak yaxe woon booba ak yooyu yëpp leeral nañ ko xam ne loolu partie historique la partie histoire waaye am loo xam ne nag ésotérique la ni ñu koy waxee mooy lu jëm ci nag diggam ak boroomam loolu boo ci téere bi leeral nañ ko ci waaye leeralaa na ci tukki bi maraaxil yi mu am étape yi fi mu jaar fépp mm-hmm. waaw ba ma fiy àgg Gabon fu ci nekk leeral nañ ko la fa xew ba mu fa jaaree ak kañ la fa jaar yooyu indi nañ ko ci ay gëstu yoo xam ne euh, dañuy setantal dat ya gëstu ko ba xam ne dat yii moom mooy yi am waaye ba mu demee ba Gabon yi la fa xew ci ay xew-xew loolu it boo ñëwee ji téere bi da ko ci fekk mm-hmm. euh, xew-xew yoo ëpp solo ci ci gabon nga xam ne euh, am na ci yoo xam ne si Bët Lamin Jóob sëñ ci téere yi nga xam ne mag ñi yi nga xam ne nettalil na ko boppam ñi daan ñi nekkoon ak moom jaareem mu am lu mu ci leen ci nettali loolu lépp muy xew-xew ya nga xam ne euh, xew na ko waaye yemuñ ca même fam nekkoon it euh, géographie bi jëm nañ koo leeral ndax dafa ajay am solo mm-hmm. ci lu taxoon tubaab bi taamu yóbbu sëñ bi foofa mel boo xamee géographique da nga xam ne dangay ngay day mel ne jublu lor ko lañ ci lañ ci lañ ci jublu woon loolu yëpp leeral nañ ko ci delluwaat ci archive yi xool tubaab yi lañ bind ne noonu la Gabon meloon booba ndax am na yeneen te yeneen bind yoo xam ne aju doon ci sëñ bi waaye day aju ci période booba waaw ñoo xam ne bind moo dañ ko doon bind ngir dénk ña fay dem ci ay administrateur nga xam ne dañuy liggéeyal tubaab bi war faa dem tubaab bi leen wax foofa na mel yañ war a moytu waaye yooyu eh, wane nañ ci kamuk ni meloon mm-hmm. ci ci ci ci eh, daal metti ci ci bari yuy lore mm-hmm. bari ay ay ay waar mm-hmm. eh, loolu wax nañ ko kon moo la taxoon tubaab bi tànn gabon loolu it leeral nañ ko ci téere bi waaye bi ñibbisee ci tukki bi ak lu waral ñu bisi ga mm-hmm. loolu it yu ci bëree bëri eh, duñ ci bàyyi xel waaye jëm jëm nañ koo gëstu ci réew bi jëm mm-hmm. leeral lan moo tax sëriñ bi ñu delloo si ko ak it eh, jeexee li jóge meññeet mi jóge ci tukki bi mm-hmm. loolu lépp lañ mën a xam waaye am na ci loo ne sëriñ moo ko tuddal boppam waxal ko boppam jeexeet yi xam ne am na ko loolu yëpp jéem nañ koo indi waaye yemuñ ca jéem nañoo génne ci téere bi téere bi jéem naa wane lan lañ mën a jàngate ay bind ci ci ci ci tukki bi Euh, loolu yooyu yëpp boo demee ci kon ci pàccub ñaareelu téere bi mm-hmm. da ko ca danga ko ca fekk mm-hmm. muy euh, yu am solo yoo xam ne mm-hmm. euh, lépp lu aju ci tukki géej gi jàll ci ay détails boo demee ci pàccub ñaareel bi muy alfaslu saani da fekk ñu ñu ñu leeral ko fa ba nga nga xam ne nag moo ca topp muy ñetteelu pàcc bi muy alfaslu saalis moom moom lañ jagleel tukkib jéeri ji dañ mm-hmm. ko baaxoo di wax tukkib géej gi ak jéeri ji mm-hmm. mm-hmm. bu ñu nee tukkib jéeri ji ñu ci jublu gànnaar ndax gànnaar mooy mooy mooy jéeri bu fekkee fee moom ay île woon ci ndox ngay jaar ba dem mais dee gànnaar yaa ngi jaar dem foofu tam boobu kon moom lañ ko jagleel foofa it boo demee wax nañ gànnaar ji du ko waral waaw sabab yi nga xam ne mooy sabab yi ak sabab yu baatin waaw ak sabab yu mm-hmm. mooy dem gànnaar gi am na ci loo xam ne mbirum mbirum asbaab zahir la mm-hmm. la ko waral la xewoon ak la waral tubaab bi ñëwaat mm-hmm. eh, ba eh, ak la xewoon daarul mën naan ak yañ fa bindante ba tax mm, exilé waat ko eh, Mauritanie loolu zahir la histoire la waaye nag am na moom lu gis ne mooy sabab yi man sanna sayri xibaama mm-hmm. jeg sa si muslima sayri rasaama mm-hmm. mm-hmm. jëy sa si xam nga loolu lam cay wax yooyu boo ñëwee ci téere bi leeral nañ ko ci la loon tukki bële ak euh, tukki bi ni mu wuteeg bële nga ay asbaab zahir la ak asbaab baatina ba mu ci lool it téere bi leeral na fam jaar dam bi maanaam fam jaar ci yoon tukki ba ba àgg Mauritanie loolu it leeral nañ ko euh, biir Mauritanie. Mhm. fa mu fa jaar. Mhm. ko ca euh, Sarsara. Euh, ñoom Jarraariya. Mhm. Euh, saxawatul ma muy mel ne fan fa la gën a ak ya xew. gox bu nekk fu sëñ bi nekk am na xew-xew yu fa xew. xew yooya téere bi taxaw na ci indi ci ay ay ay ay ay leeral. waaye sëñ bi nag dafa am nekk ak nekkam Mauritanie dafa bari ay jeexit. dafa am jeexit yu baree bari. ci ay relation yoo xam ne am na ko fa ñoo xam ne ay taalibeem lañ ñoo xam ne ay wëllëre woon lañ mm-hmm. yañ seq mm-hmm. bari na fa ay loolu ay jeexit mm-hmm. waaye Mauritanie suñ borom feeñal na fa ci moom ay karaama bare bare bari yoo xam ne am na sax euh, benn borom xam-xamu Mauritanie boo xam ne taalibe la muy euh, cheikh docteur Abdou Mouhamad Ahmad Misk euh, téere min karamaat cheikh Ahmad al Khadim tudde kon téere bi indi nañ ci ay karamaat mhm. ak i nettali yu yéeme yoo xam ne xew na mhm. ci ci ci gànnaar ak leeral nañ fii la sëñ bi jot taalif ci gànnaar mhm. sëñ bi barab fu nekk taalif na fa waaye bi mu nekkee gànnaar lam fa taalif moom it leeral nañ ko waaye ci eh, indi nañ lu tax mu ñibbisi lu tax tubaab bi indiwaat ko jóge jële jële jële ko Mauritanie delloosi ko senegal mhm. kon fas lu ñetteel bi moom lañ jagleel tukkib gànnaar bi muy lu yaatu mhm. lu bari lu mhm. fees dell loo xam ne lu mat xam la ndax tey ku ne xam na ne diggante yoonu murit ak Mauritanie diggante bu xóot la boo xam ne sëriñ bi boo fa demee gis niñ ko jàppee da ngay xam ne ak nekkam fa lu am solo la woon lu mat a xam la mu ñëwee ci téere bi nag pàccub ñetteel bi moom lañ ko jagleel bu ñëwee ci pàccum ñeenteel bi nga xam ne moo ci mujj muy mhm. faslu rabia mhm. euh, moom moom lañ jagleel euh, li ñuy li tuddee résidence surveillée mooy mhm. euh, génnewuñ ko tëjuñu ko waaye dañ ko bàyyi këram mu nekk këram waaye nag ñu di ko foglu di ko surveiller daal nekkul amul liberté fu ko neex dem nekkul ne kum kum neex nga seet si ko yooyu yëpp nga xam daal tëjuñu ko waaye dañ ko doon surveiller loolu dafa am ñaari barab ci Sénégal yoo xam ne fa la nekkoon ci résidence surveillée mhm. résidence surveillée boobu nag lan moo ko waral mhm. waaw lan moo nekkoon politique mm, colonialiste bi muy mhm. tubaab bi ci jamono ji nga xam ne ci la tëye euh, sëñ bi ci résidence surveillée lan la ci jublu woon lan lan moo ko lal lu boo ñëwee ci téere bi danga ci fekk ñu leeral ko foofu nag ci euh, sëñ bi fu mu a nekk daf koo dundal mm-hmm. waaye ci résidence surveillée yooyu foofu la amawaat occasion ba nekk nekkaat ak ay taalibeem ndax boo xam ne xam nga ne mm-hmm. Gabon nekk foon ak ay taalibeem mm-hmm. kon yarub sëriñ bi da ko da da ko da da ko wóyal yar ba mu tàmbali woon Touba bi mu ñëwaatee gànnaar ya def na ko fa def na ko fa waaye bi mu ba ceyeen it yar boobu dafa gën a dafa gën a gën a dëgër dafa gën a dafa gën a am solo waaye ceyeen it ay karaama ya fa xew ci ay karaamaat indi téere bi leeral lañ ko ci ak jógeem ci ñëw njaareem ngeen ne ci la jógee ci ci ci mille dekkutoon mille ci la jógee ci yéen ñëw njaareem lu tax mhm. bi euh, indi ko njaareem ak yoon na mu ci yéen fa mu jaar ba romb Mbàkke ba ñëw ba ñëw njaareem mhm. loolu lépp ak dat yaag yëpp boo duggee ci téere bi mhm. da fekk ñu ñu ñu leeral ko mhm. euh, bu ñu demee ba njaareem it téere bi taxaw na ci ay détails ci wàllu yu am solo ci dudug sëriñ bi ndax mooy alxayaatul ilmiya wal xayaatu ruuxiya wal xayaatu tarbiya sëñ bi ci wàllu xam-xam ko dundee ci jaareem wàllu nam doon yare ci wàllu ruux maanaam nañ doon jaamoo yàlla nañ ko doon dundale seeni waxtu ci jaamu yàlla ak nam doon yare taalibe yi ci loolu lu am solo la loo xam ne bind yu bari lañ ci war a jëlee moo tax tërë bi taxaw na ci waaye njaareem it ay xew-xew yu bari xew na yu fës lool tudd nañ ko am nay am na ay délégation yu bari yoo xam ne ay boroomi xam-xam ay mm-hmm. nit yàlla mm-hmm. yoo xam ne am ñu ñëw nañ si sëñ bi njaareem mm-hmm. am na ay mbindante yu siiw yoo xam ne njaareem la ko bindante yooyu téere bi indi na ko ak ay ay ay ziyaara yoo xam ne yu am solo la ak it xew-xew yu na ci xew yu am solo yooyu mooy tabax jumaay njaareem waaw tabax jumaay njaareem ak ak ñoo xam ne da leen a waajal ñu ñu ak digle gum digle ñu tabax jumaay Touba. Mm-hmm. ak yeneen yoo xam ne xew-xew la yu xew njaareem yu am solo. Mm-hmm. Euh, ba tey euh, buntu boobu daaneele nañ ko indi leen lenn ci loo xam ne ay karaama ak i xar yoo xam ne xew na njaareem. kon loolu mooy ñette ñeenteelu. Mm-hmm. Euh, ponk bi. pàcc bi ci téere bi. nga xam ne boo xoolee kon mooy. dunduk sëriñ bi. liggéetu géej gi mhm. tukkib géej gi mhm. tukkib gànnaar mhm. ak ñaari résidence surveillée yi nga xam ne def nañ ko def nañ ko ko ci ci yéen ak ci njaareem moo xam ne njaareem fa dañ koo topp ba na mu wuy ak nañ ko indee Touba kon loolu mooy li nga xam ne moo nekk ci téere bi waaye téere bi am na lu ñuy tudd ay annexe yoo xam ne dañ ko cee dañ dolli ko ci yooyu bokk na ca mm-hmm. ay seede yoo xam ne ay boroomi xam-xam mm-hmm. ak kilifa yi jamonoonte ak sëriñ bi def nañ ko ci sëriñ bi ndax mm-hmm. loolu dafa am solo eh, ñi eh, ndax dana dana bokk na ci liy tax ñu xam kan moo doon bi ndax ñi ñi jamonoonte ak moom te ñi ci xam-xam nañ ko jàppe woon ak yañ wax ci moom ci ay seede yooyu dafa am solo moo tax indi nañ ci am lim boo xam ne mat na fanweeri seede ak benn yoo xam ne boo demee da ko fekk ci téere bi waaye it am na luñ ci luñ ci indi ci yooyu ci yéegal mooy sëriñ bi xam nga bari na da ngay dégg ñuy wax ne sëriñ bi mm. ah, waaw moom day euh, ku fonkoon sunna la mm. euh, waaye mag ñi sax lool dañ koy yaatal ci mag ñi koy wax léegi mm. ne ba téer yu bari dañ ko amutoon daal waaw mel ne seen seen seenu gëstu yaatuwutoon euh, téere yi jàng baaxoo jàng fii rek lañ xam moo tax nit ñu baax lañ waaye nag seen xam-xam dafa limité wu ndax ñu amuñu woon ay maraaja loolu nag <laughs> ci sëñ bi moom mhm. euh, dafa doon koo xam ne yaakaar nañ ne ci gox bi ku ko mhm. fi ëppoon ay téere mhm. euh, bëriwut waaw euh, ba loolu ba tax na firnde yi ci nekk mooy li fi bàyyi rek ci ay téere loolu am na yiñ ci jot a gis rek ca ca ca ca def ko ab liste nga xam mooy gaal yi nekk fii ci bayti ak gaal yi nekk jaareem buñ ko xoolee xool téere loola rek am xam na am na ñu gisut waaw yéen ñi gis rek wane na téere yi yoo xam ne am na ba ci ñun ñoo jamonoy tey ji am ñoo xam ne ñu ko mosuñu koo yër mosuñu koo gis mosuñu koo xam mm-hmm. ci ci tafsir ci ci ci hadis mm-hmm. ci fiq ci tasawuf mm-hmm. ci taarix siira si yonent bi sallallahu alayhi wasallam ay téere yu raar yoo xam ne ñoom amoon na ko loolu day doon wane tegtal yaatu xam-xamam waaye yittewoo xam-xamam ndax xam nga doon na waajal jàngu boo xam ne mhm. mooy bii nga xam ne tey Cheikh Mouhamadou Mountakha mhm. bokk na ci ab liggéeyam euh, jëmmal ko mhm. euh, ak ñeneen ñi nga xam ne jiitu woon nañ euh, Cheikh Mouhamadou Mountakha ci daan yëngu ci jàng ak jàngale ñun ñëpp xamoon nañ bëgg-bëggub sëriñ bi ci daara jooju nga xam ne bokkoon na ci li ko doon waajale ay téere kon loolu boo demee ci téere bi da nga fekk ñu indi la la des ca maktabaam ba mhm. nga xam ne mat na téeméeri téere ci téere yi nga xam ne mhm. yu am solo la mhm. ci luxa ak tawxiid ak fiq ak euh, ca waaye sëriñ bi euh, bu daan bind danaan cité ay référence am maanaam tudd yi nga xam ko ci biir lu ñuy taalif loolu it ko ba tudd ci Euh, lu mat téeméeri téere yoo xam ne bu ñu boo xoolee mbindum sëñ bi da gis ne dellu na ca. Mm-hmm. ba ba cité ko ci ay mbindam. Mm-hmm. Euh, dolli nañ ci it ay ay ay image yoo xam ne xëy na kërum njaareem. di mm-hmm. jumaay Tuubaa yi nga xam ne. Euh, mat na. ku ku téere bi xam ne kat ki ñuy wax kii kat lii ay mandarga la yoo xam ne bàyyi na ko muy ay image mm-hmm. loolu indi nañ ko ci indi nañ ko ci téere bi ci mujjug téere bi kon loolu mm-hmm. mooy li nga xam ne moom la téere bi làmboo nga xam ne gis nga mm-hmm. dugguñ ci détails yi waaye dañuy tudd rek ngir ki nga xam ne gëstukat la ki nga xam ne jàngkat la xam ne kat téere bi war na koo jéem a am mën a xam li nga xam ne ñun wax nañ ko mu dem nag fekk ko fa mu nekk mm. mën koo mën koo liir bu dee gëstukat mm. mu xam ne lii am na bu ñëwee ci téere bi mm. dina ko ci fekk euh, kon xëy na bi ci mujj rek ci gaarul téere bi mooy bu bu bëggoon a wax téere bi mm-hmm. li nga xam ne ràññikoo na ko mm-hmm. waaw li nga xam ne ràññikoo na ci man nañ caa tudd yenn rek mm-hmm. mooy téere bi dafa matale eh, dunduk sëriñ bi waaw ca topp ko ca marxala bu nekk ñu taxaw ca ndax am na téere yoo xam ne danañ gën a yittewoo marxala bii beneen marxala ba ñu romb ko rek ndax eh, dafa am leen yitteel bu ñuy bind waaye bii moom dunduk sëñ bi da koo jox maanaam da ko da ko da ko da ko dafa am sumuliya daal dafa làmboo mm. mën nga defa dafa làmboo lépp ba mu feeñee jamono ba bañ ba muy wuy ji boroomam mm. ak woote bi mu woote ak xew-xew gën am solo ci ak dundam mm. ci marxala bu nekk boo xam ne jànn muy étape bu nekk ci ak dundam da nga fekk mu leeral ca loola waaye téere bi bokk na ci li ma ne ko nekkul téere bu rëy bu ëpp mhm. nga xam ne téere yoo xam ne bu ñu bind ay mujjallala lay doon mhm. euh, xëy na gëstukat bi dana ko man a jëfandikoo waaye ku bëgg a liir moom mhm. dana dana dana diis ci yow dana dana bari ba ëpp ndax danga nga dugg ci détail yoo xam ne mën naa am euh, bala tënk maaloo moo ba nga soxla mm-hmm. da nga liir lu bëree bëri bu dee mm-hmm. bi nag dafa tënku mm-hmm. rëyut lool waaye tuuti tuutiwut ba ëpp ñu waaw maanaam ba ñaan toon mu mel wala xesar mu xel waaw ñaar yooyu yëpp fexe nañ ba moytu ko ci téere bi bokk na ci lim ràññi ko it mooy manhajiya bi nga xam ne mm-hmm. ci lañ ko ci lañ koo taalif mm-hmm. maanaam méthodologie bi nga xam ne moom lañ topp mm-hmm. te méthodologie boobu dafa dafa tege ci euh, ay tomb yoo xam ne mën nañ koo tudd ci lu mooy sukkandiku ci référence maanaam maraajan yi nga xam ne mooy am asaala ci yoonu murit maanaam delluwaay yi nga xam ne mooy cosaan mm-hmm. waaw ndax am na ñoo xam ne dañ fi delluwaay yi nga xam ne mooy cosaan ñi dund bind ko ci nekk ñu maandu mm-hmm. dem ci ay tubaab wala ñeneen mm-hmm. lañ bind ñu di ci sukkandiku téere bi nag dafa jiital delluwaay yi nga xam ne mooy delluwaay yi nga xam ne yu cosaana la ci yoon yi ñaareel bi yemuñ ci ay delluwaay rek waaye dafa am na ñuy wax baax su daan yi mooy gëstu goo xam ne dañoo dem gëstu ko eh, ci terrain bi xam ne dem dajale ay ay ay ay ay mhm. euh, xam ne. Mhm. ba tax na am na ci téere bi loo xam ne mën nga nañ ne ci gëstu moo ko indi waaye jëlewuñ ko ci benn téere. Mhm. nga xam ne boo demoon ci benn téere doo ko fekk. waaw bokk na ci misaale yi joxe mooy marché boo xam ne suñ bi defal na ko suñ joogu mati. loolu dañuy wax ne daanaka amul benn téere bu mu nekk waaye bi ñuy gëstu téere bi. bi biir téere bi ci lañ ko gis. ak sëñ Abdou Koumbaan mm-hmm. marché bi nga xam ne defar na ko ko mm-hmm. bokk na ci méthodologie téere bi mm-hmm. mooy euh, fexe ba wa euh, bàyyi xel maanaam yoon wi ñuy jaar pour taalif maanaam almaayir académie ya mooy norme yi nga xam ne moom lañ tëral kuy bind ci maaluma maaluma yi nga ciy indi nga fexe ba wéral ko wane fa nga ko jële wax ko buñ ci indi ci ab ab ab maaluma boo xoolee dinañ la wax fañ ko jële bu dee ci téere la bu dee nit a ko nett li ñu wax ko ko nett li ngir maalumaat yi wóor na lii ñu bind kat nekkuñu luñ toog xalaat ko bind ko rek mm-hmm. waaye dañ ko dellu ci delluwaay yu wér mm-hmm. loolu dafa doon loo xam ne bàyyi nañ ko xel bu baax a baax. Mm. ak mm, bokk na ci li ñu xel ci manhaj ji mooy. Mm. di wóorlu bu baax dat yi ak xew-xew yi. Mm-hmm. ndax léeg-léeg euh, yi dat yi day mën a wuute. Mm-hmm. kii wax dat bi wax dat bi kii wax dat bi léegi nag dañuy wóorlu comparé dat yi ba xam ne dat yi bii moo gën a yenu maanaa. Mm-hmm. ci mbir mu nekk ñu indi ko. indi dat waaye duñ dat bu njëkk a gis rek jël. taxaw bu baax a baax a baax. tur nit ñi dañ koy bàyyi xel di xam kii kan la ku sëñ bi tudd wala koo xam ne tudd nañ ko ci téere bi nañ jéem a xam ne kooku kooka mooy mooy kan. waaw xew-xew yi dañuy fexe ba wóorlu ko. waaw euh, bokk na ci li nga xam ne méthode la woon. mooy dañ doon comparer documents yi nga xam ne. ñu ci biti la. ak document yi nga xam ne moom lañ bind ci biir yoon wi. loolu la dana di ko comparer léeg-léeg dana la gën a wan li nga xam ne mooy mooy mooy mooy mu gën a wër. waaw te it euh, kilifa yi nga xam ne tudd nañ leen ci. muy ay nit yu ñu xam. wala ay barab. ay dëkk. yooyu lu ci nekk. Euh, danañ ko leeral. Mm. indi ci am nub sa wax. Mm. bu dee nit la ñu wax mooy kan. Mm. waaw kon loolu mën nañoo tënk ne. Mm-hmm. bokk na ci yi gën a ràññiku mooy gën ci ci téere ci téere bi. waaye bokk na ci it mooy eh, fexe ba génne ko ci anam goo xam ne gu mucc ayib la. Mm-hmm. Euh, ci kayit goo xam ne dana yomba dana yomba ay bët. Mm-hmm. te am qualité. waaye euh, ñu def ko xilaaf boo xam ne xilaaf bu. bu bu ràññiku la macha allah. Mm-hmm. loolu yëpp ngir mu nekk téere boo xam ne dañoo bëgg mu mën a dem ci bibliothèque yi ci àdduna bi yëpp. man mm-hmm. a yegg fépp. Mm-hmm. moo tax ñu te ci qualité bi nga xam ne. mool war na koo am loolu it bokk na ci lim ràññikoo. Euh, bokk na ci lim ràññikoo loolu moom ci moom moom. ci sant yàlla. mooy mën nañoo jàpp ni ki ko njëkk jàng ba mu jeex mooy sëñ Muntaxa. waaw xëy na weesoo ñu ko taarif doon ko topp. koo xam ne moom da koo jël liir ko. moom mën nañu Seex Muhammadu Muntaxa la rahimahullahu a wa ndax moom liir na ko ba mu jeex suñ suñ ko suñ axma joxe ab diir ay fan la ci teg mm-hmm. bu mu ko niwaat mu ne ko liir naa ko mu jeex ba tàmbaliwaat ko <laughs> kon loola it ab soññee la euh, boo xam ne euh, moom mi ko sa joxe ndigal ñu móol ko mm-hmm. euh, wax ne nañ ko móol mm-hmm. la ko mool it jóge ci moom mm-hmm. mu am yitte jooju ak ku ne xam na ne xat ni mu xate mm-hmm. kon loolu mën nañ cee jàngee ne kon ab soññe bu réerée li ci jànkat mm-hmm. xam ne kon war nañoo xoolaat suñu bopp uh-huh. ndax jàpp na ne kuy jàmbat xat moo la gën a xat bu dee mage ah kon eh, ki nga xam ne ndaw la xatut am jot ca ba <laughs> bi da jafe ko uh-huh. kooku kon war nañoo seetaat suñ bopp ak jànkat yi kon daal xëy na loolu uh-huh. mm, doy na rek ci téere bi téere bu yaatu la wax day laaj gëstukat yi ak jàngkat yi jéem koo am ngir mën a taxaw ci li nga xam ne moo nekk ci biir mm-hmm. comme ni ñu koy waxee mbirum doom liggéey doomu adama la mm-hmm. nekkul dafa mat sëkk sëkk ba kenn amul loo ci mën a mm-hmm. euh, jubbanti kon nag loolu it bu woote la boo xam ne dañ koy woo bépp jàngkat boo xam ne gis na ci loo xam ne lii lu ma tax xoolaat la loolu doroyaa xen ni ñu ubbeeku di sawar lool mm. ci jot ko mm. Mm. ba li ci gën a mën a baaxal baaxal ko ndax xam nga ne téere dañ koy tabax di ko tabaxaat di ko tabaxaat nga xam ne tabax saaniye bi lépp loo xam ne njuumte la euh, buñ ko buñ ci jotee dañ ko corriger ndax bala ñu ko moolaat danañ ko muraajawaat buñ koy muraajaa ñi ko jot a bu ñu ca amee am na xam am na maaloo boo xam ne amuñu ko woon ñoom ñu am ko man ñu ko dolli mm-hmm. xasida koo xam ne gisuñu ko woon wala ba ñuy tudd barab sàngam sëñ bi lii dafa taalif mm-hmm. am na yu yu ko xam ne yii fa la nekkoon mm-hmm. xamuñu ko yooyu yëpp kon ñu ubbee ko daal ci lépp loo xam ne mën naa gën a baaxal téere bi du koy génnewaat loolu daal lañ doon gaaral ci téere bi sëñ Fallou di sant bu baax di gërëm di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa sëñ Saam leeral gi macha allah am solo lool xam naa benn question bëgg laaj mooy téere bi am solo gi mu am solo nii. Mhm. ndax nekku leen di xalaat ci gën koo yaatal ci yeneen langue yoo xam ne. waaw mhm. waaw jërëjëf laaj bu am solo la. Mhm. loolu it ñu ngi ciy bi nopp ne daanaka. waaw ñu ko loolu it dañ ci may ma santaale ci ay mbokki taalibe. yoo xam ne dañoo am ak Rawdu Rayaahin ak Jokkoo. Ah, di ànd ay liggéey mooy mu Mafatihul Bichri bu université mhm. bu Gaston Berger mhm. ñoom ñoo waxoon ne ñu leen ci joxe ndigal dinañ ko mhm. euh, tekki ci tubaab yàlla def na tekk woon tekki nañ ko ci tubaab ba topp rek ci des ñëwoon nañ fi sax def fi ci université bi ngir gaaral yi nga xam ne moom lañ tekki woon ci ay tubaab kon loola mën nga ne sori na lool loola it ñoo ko jafe ci français am nañ yéene yi bu noppee anglais bi noonu italien bi noonu bi noonu mboolem langue yi nga xam ne bi vivante la mm. ci donc loo xam ne tasaaroo na ci àdduna ñu mm. yóbbu ci téere bi ngir euh, sëriñ bi àdduna xam ko mm. gën cee mën a jariñoo macha allah jërëjëf sëñ Sam euh, waxtaan wi amoon na solo lool buñ bëgguñ woon mu jeex day mel ne ku koy diglu day mel ne yaa ngi dund téere bi ci ni koy ardoo dafa am solo lool kon téere bàngoog muy téere bu am solo boo xam ne ni ko sëñ Sam waxe bi muy tàmbali rek mooy ne sëñ bi ak dundam dafa riche lool ci domaine yëpp te li ci wér dafa gën a ëpp am solo bi mm, ci leneen li nga xam ne dañ koy wax te wérut kon day mel ne yittewoo li nga xam ne moo ci moo ci wér mm. loolu day doon lu am solo te yaakaar naa képp koo xam ne yaa ngi gëstu ci sëñ bi tey am nga marjan boo xam ne tey boo xooloon yeneen marajan yi nga xam ne mooy marajan al asliya tey bu ma doon misaal day mel ne kii lubb dañoo jël yooyu yëpp la ca kii ñu def ko ci benn téere ne nii boo ko dee jàngatee téere bi loolu nga ci yëg ñaareel ba tamit téere bi da ngay yëg ne uslub bi dafa yomb mooy ki koy liir da ngay da ngay am da ngay sawar boo ko dee liir ndax dafa doon uslub boo xam ne sëxal la te loolu lu am solo la ci wàllu taalif kon daan ñi ngi invité gëstukat yëpp ni leen daan képp koo xam ne yaa ngi wax ci sëñ bi tey marjan baa ngi nii te dégg ngeen ni mu ko waxee mooy ne ñu ngi koy jéem a yaatal ci yeneen langue kon lii lenn la ci liggéey yi nga xam ne rawdu mi ngi koy mi ngi koy taxawee te sëñ Saam moom mii dafa bokk ci ñenn ñi nga xam ne ñoo doon liggéey teere bi ndax rawdu lépp lu muy def muy waxtaan yi muy def ci màggal yeeg yëpp rek mbooloo ñoo koy liggéey moo tax luñ génne da ngay yéeg day am qualité ndax mbooloo ñooy ànd taxaw muxaadaraat yi nga xam ne ñoo koy def ci màggal gi mbooloo ñoo koy taxawee gis ngeen téere yi tamit mbooloo ñoo koy taxawee. Hmm. tey nag boo ñëwee ci maarat bi nga xam ne ñu ngi ko ànd waa muqaddamatul xidma ñoom ñoo koy organiser mm-hmm. ak AEM mooy ñi nga xam ne association des écrivains de la Mouridiya mm-hmm. nga xam ne ñoom tamit ñi ngi fiy gaaral seeni téere mm-hmm. boo demee da nga fa fekk yeneen yoo xam ne raw du produire na ko da nga fa fekk liñ naan Mawahibul Xudus da nga fa fekk Masalikul Jinaan nga xam ne raw du moo ko euh, taxqiq da fa fekk tamit euh, euh, aljawharu nafis mm-hmm. da danga fa fekk tamit yi nga xam ne ñu ngi ko tuddee min fatawa yi nga xam ne sëñ bi moo ci doon fat def ay fatwa mm-hmm. ñu dajale ko da nga fa fekk min wasaaya nga xam ne dénkaane yi nga xam ne sëñ bi moo ko defoon da nga fa fekk tamit min xekkam yi nga xam ne xekkam yi nga xam ne sëñ bi daanañ ko jëlee ci moom kon nga gis ne boo demee ci maarad bi tamit da nga fa fekk livre bi nga xam ne mooy subuhaat te moom lañ doon gaaral léegi mm-hmm. ak dirasaat te dirasaat mi ngi ko sëñ bi mi ngi ko doon leeral ci biir di wane ne fikra bi mooy idée bi ay muxaadaraat la woon yoo xam ne moom lañ daan def ci màggal yi tey def nañ ci ñetti bi mooy adadu saani saalis te mooy euh, Cheikh Ahmadou Bamba Abdoulaye wa Xadimu Rasuli al adadul awal boo demee da nga ko fekk al adadu saani yi nga xam ne yëpp ci ay muhadaraat la yoon yoo xam ne dañ koo def mu am solo ñu dajale ko ci téere tey ñu ñëw ba ci téere bi nga xam ne moom lañ doon ard muy ay muxaadaraat yoo xam ne defoon nañ ko ñu dajale ko def ko ala shaklil kitaab muy téere bu am solo kon sëñ Saam ñu ngi lay jaajëfal bu baax waxtaan wi am na solo lool di la jaajëfal ndax wax dëgg coono yi nga jànkoonteel ngir ñëpp rek ngir ñëw bëgg a ardul ñu téere bi ba ku ko dégg rek da nga sawar dem tey wuti téere bi ngir liir ko ah ñu ngi lay jaajëfal bu baax di la euh, sant di la gërëm di ñaan suñ borom mu yokk wér gi yokk xam-xam bi di ñaan suñu borom mu sàmm leen di ñaan suñu borom tamit mu may ñu àgg ca bis ba bisu màggal gi ci jàmm ak salaam te may ñu ñu taxawee ko ni nga xam ne noonu lañ ko sëñ bi digalee mm. lépp luñ ci def ci ay e, jaamu yàlla ak i xéewal suñu borom nangul ñu ko di ñaan suñ kilifa gi di sëriñ Muntaxa suñu borom yàggal ko fii ba naal yi nga xam ne moom la sumb ngir liggéeyal ko maam ju tedd jooju suñu borom àgg mu àggale ko. ñun ñëpp ñu fekke ko jërë ngeen jëf. wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa